wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziar fii ñu leen baaxoo nuyoo muy studio 18 safar ki as samadiya di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi nag kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñ borom wan nu kiimaanu gudd fan ci jëmmam suñ borom defal ko ak wér ak tal ba lii ko mag ñi bàyyee mu di ko sàmm yàlla gu ci dara suut yàlla na ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ña doon mébét barakati Cheikhul Xadim di ziyaare bu baax borom barab bi di Cheikh Abdou Samad di ñaan suñ borom mu mott li ay yéeneem dëgëral taxawaayam di siyaar mboolem techniciens yi nekk ci barab bi yëpp ak mboolem bokki taalibe yi nga xamante ni nii ñooy saytu barab bi yaay émission yu fasanti ko noo ngi ñaanal ñëpp yërmaande suñ boroom aku njëggalam barkeb sëñ Tuubaa ñoo ngi ñaanal itam sunu bokki jullit yi nga xamante ni ni ñu ngi ci ay jafe-jafe moo xam fuñ fi man di nekk ci pàkki àdduna yi rawatina waa Palestine ñoo ngi ñaan suñ borom tabaraka wa taala yàlla may leen jàmm ñoo ngi ñaan ci borom bi tabaraka wa taala mu tàggale leen ak seeni noonu te defal leen aafiya yu sax dàkk suñ borom jeexal fitna ji dox seen diggante ak seeni noon barkeb sëñ Tuubaa di ziyaare mboolem mbokki auditeur yi ñu baaxoo àndal ci waxtu wi ñu ñuy bàyyi xel ci jataay yi ñuy amal te jubluwuñ ci dara rekk lu dul fàttalante ak laabiirante ak soññante ndax koo xamante ni mën leen ñàkk ànd te soo jógee doo ko nekk danga koy soññ bala ngaa jóg te mënuloo ñàkk ànd ndax suñ boroom anu boole te mooy waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu buy suñ boroom jamoon ci waxtasimu rek kenn amut aw lay ndax waxtasimul wax ndigal la te yàlla mi digle julli digle koor digle asaka moo digle ànd kon ànd farata la xam ne fa aqimu salaata wa atu zakata waxtasimu billahi la ca teg teg ci jamian nag yéen ñëpp laa wax muy amul kenn ku yàlla may daraja joo xam ne settee na la ci biir ànd bi jamian loolu la naqari ci àll bi itam nga daal di bopp say bagaas ba nga génn wala tafarraqu ndigal la kon li nu war mooy nu ànd te yàlla tax jëfe ko ngir ndigal suñ borom yool bu rëy ci nekk ci ànd tawféex ju rëy rëy na ci ànd ñàkk ànd itam fitna la yoo xamante ni nii doy na kiimaan mbokk yi tomb bi nga xamante ni nii bëgg nañ koo indi tey ñu laayante ci biir mooy nekkin wi nu dëkkee ndax léeg-léeg dañuy seetlu ni ay jafe-jafe dafay am ci dëkkin wi ba tax léeg-léeg ñàkk a mën di ko juddu ñàkk xajonte di juddu ba muy jur ay jéeya yoo xamante ni ni mënoon naa ñàkk ñu bëggoon a indi tomb boobu yi fàttalante ci bu baax a baax ngir ñu bàyyi ko xel bu baax ndax bokk yi ñun ñëpp maase nañ seetlu ni léeg-léeg ñàkk a déggoo diku day am ci diggante ñaari way dencante muy nit ak boroom këram ba tax léeg-léeg sax mu jur ab diir ci biir kër gi boo xam ne duñ tuddante te ñàkk xajoo rekk moo ko waral léeg-léeg itam mu indi ak dellu muy ku jigéen ki boobi bagaasam delluwaat seen kër te du tee sax boo mu sëy gën a fa waaye mu fay ndax ak ñàkk déggati ko déggante léeg-léeg itam mu indi ak tàggali ko ba kenn ku nekk dem ak boppam ñàkk déggotikoo gi mooy waral léeg-léeg wax ju ñaaw di juddu ci waxante léeg-léeg itam mu àgg ci ab defante ba loraange di juddu ci deret ji tuuru walla cër bu amuk gaañu gaañu léeg-léeg sax mën naa dem ba bakkan te yooyu yëpp mi ngi am ñu gis ni itam ni léeg-léeg waajur dégg di ko ak doomam ba tax mu génne ko kër ga walla sax doom gedd bàyyi boobi bagaasam génn kër ga te ñàkk dégg ko rekk moo koy def léegi léegi itam ñu ne ci biir kër gi kenn ku nekk doon ab jàmbur ci moroomam loolu itam jafe-jafe la boo xamante ni bi société bi ñu ngi koy dund léeg-léeg itam nga gis ci ñàkk déggante tàggale ay xarit yoo xam ne seenu ànd sori woon na lool waaye dem ba jafe-jafe am kenn ku ci nekk jaar barab di wax lu ñaaw ci moroomam te ñàkk a déggatikoo rek moo koy waral léeg-léeg itam nga gis diggante nit ak kilifaam ñagas lool ci ay dëg-dëg walla ay njuumte yoo xamante ni léeg-léeg mu mi ngi am te njuumte yooyee léeg-léeg mën naa am ci ki yilife mën naa am moo juum léeg-léeg itam mu am ci ki ñu yilif fekk ki ñu yilifa juum ba tax na yooyu yi jafe-jafe la yoo xamante ni nii yu bare bare bare la ci biir société bi moo tax itam yi xew di xew ndax mer ba pare ànd ak sam xel dafa jafe te ñàkk sago gi yéeme na moo tax yu bare bari yu warut woon di xew di xew ci biir société bi loolu yi nag ay jàpp ni manque d'éducation de baas ci la waaye itam ñàkk xam sunu diine ci la waaye itam nag noon bu rëy bi nga xamante ni moom la sunu boroom lëkkale ak sunu dund muy iblis dana ci jouer rôle yu am solo naka noonu itam bakkan di ab noon ba pare niru ab soppe léeg-léeg moo lay joo ci yenn yi naka noonu itam bànneex léeg-léeg mu dugal nit fu mu warta dugg naka noonu itam àdduna muy bëgg am koom walla bëgg daraja dana tax itam nit def lu mu warta def bokk yi yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xamante ne ni société bi ñu ngi koy dund te bari na ci yoo xamante ni nii mënoon naa ñàkk ñu jàpp ni lenn lu ci rekk rekk mat naa waxtaane sottente ci xalaat ngir nu delloo siwaat sunu xel ba li nu suñ boroom sant nu man koo def euh, mu jàpp ni ñi nga xamante ne ni ñoo séq dund gi sunu boroom daam nu mu doxale mooy def nu ay góor ak jigéen waaye séddale nu ci ay waaso def nu itam nu doon ay bokk amit it lum nu digal ci rafetal ak sàmm bokk goog yi dig nu ci àjjana am itam lum nu tere ci yàq bokk ak ñaawal ko dig nu yi itam mbugalum ëllëg wala takunu kallazina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahumul bayina bu leen mel ni gaa yi nga xamante ne nii dañoo teqalikoo waaye yemuñu ñi teqalikoo sax waaye dañoo jooyat seeni xalaat ba mënatuñu ànd te dara déggu ko nag lu dul bëgg àdduna wala topp seen bànneex ndaa seytaane man leen ndax xam nañ dëgg leer na leen nañ waaye mënuñu ànd ba tax yi xew seeni diggante di ci xew mu mel ne su fekkonte ni ni daa bokk ci njàngale mi kenn ku nekk ñu wax la li la war ci sa moroom ngay sàmmoonte ak moom mel na ni jàmm ji dana gën a yaatu te dana gën a sax su fekkee ca diggante way dencante la ànd ba nañ ko laytaay ci dëgg nañ ko laytaay ci biir ngor na ci ak nangoo muñ am ak sàmmonte ay àq muy kenn ku ci nekk yelleef yi sa moroom am nga jox ko ko sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu daf daan wax ni bépp sëy bu ñuy takk te ma doon ca dara ñetti sart yi mënu caa ñàkk te mooy nañ bëggante nañu war a ànd na ku góor ki tane ku jigéen ki teg ca ni àdduna day néeg bu lëndëm jigéen di sëlmaxa te silmaxa nag boo ko dugalee ci néeg bu lëndëm te dugaloo fa ku ko tane lu leer mën na faa bañ a juddoo loolu mat na bàyyi xel bu baax a baax ndax bokk yi léeg-léeg nga seetlu sëy bu ñu takk boo xamante ni nii bëggante ga nekku fa ñàkk a ànd nga itam néewu fa ndax dañ koo nëbb suñ demee ba ca biir mu feeñ dana jur ak ñàkk a déggooti ko dana jur ak ñàkk a bëgg itam léeg-léeg du fa ne moo xam ci ku góor ki la moo xam ci ku jigéen ki la waaye ay bokk ma koy man-manle ba dugal ko ci biir te bokk yi ak bëgg fu mu newut ak nangu du fa ne te ak nangu fu mu nekkut boo fa amee njaboot njaboot ko du baax ndax ngànt la ne ci biiru xol baay tax mu am ay jeexital léeg-léeg nag jafe-jafe bi ci parents yi lay juddoo muy danoo jàpp ni njaboot gi noo leen moom ba tax na duñ am xalaat ci liñ war a def léeg-léeg dañuy jëfandikoo rek sunu sañ-sañ waaye day am mag mu baax moo xam ne daf daan wax ni day leen fiire di maye te bàyyi forcé di maye day leen fiire di maye bàyyi forcé di léeg-léeg itam ku jigéen ki dana fésal ak ñàkk d'accordam ci li ñuy def waaye ak néew dooleem ak kilifteef dana ko ci dugal góor ga itam accepté ko ndax topp ak bëggam ba tax jafe-jafe yu bare bari di ànd akub sëy waaye diggante ñaari ñu bëggante te cofeel ga di dëgg te yërmaane lal ko jafe-jafe mën na faa bañu a judd mbaa bu fa juddoo lu ñuy régler jàll lay doon léeg-léeg tam nga gis koo xamante ni ak bëggam lay topp ba tax mu dem ci lasraarkat yi ñu tasxiiral la te loolu lii loxo defoon loxo mën na koo dindi walla ñu jox la te liñ la jox bëggoo walla bëggut ñaa la day gone ak danga koy comprendre su fa bëgg gënewut ca teel teel caa yebbi sa loxo ndax sa yëg koo bëggul moom dara gënu koo doon erreur te bari na jafe-jafe yoo xamante ni daf cay juddoo ndax dañuy dem ba ca kanam mu judd mu feeñ ca biir fekk sax ma nga ca woon ca njëlbéen ga waaye dañ koo fullaalu loon loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax léeg-léeg itam ci biir kër gi léeg-léeg defe dana am ak ñaaw njort ba tax ak réeroo di feeñ ci njaboot muy diggante ñaari way dencant waaye bu boobaa itam lu ñuy toog waxtaane ko rekk lay doon àdduna lu fi waxtaan mënta régler amut lu fi waxtaan mënta régler amut waaye dafa mel ni toog jataay waxtaan ñaare su amee rek jafe-jafe daam te nit bu ngeen dul communiquer du ngeen déggante ndax communication lu am solo la ci ak dund euh, léeg léegi itam foog ak defe dana gaar doomu aadama bi seytaane profito ca mool ci loo xamante ne ni waxtu wu ci nekk dala koy wan ba nga dal ci kaw nit wala nga wax ko loo xamante ni nii da ngay dem ba ci biir nga di ko rëccu ci xamewuma ko woon nii ginnaaw buñ la leerale loolu itam jafe-jafe la boo xamante ni nii mat naa bàyyi xel bu baax a baax léeg-léeg itam nga gis biir kër goo xamante ne ni jafe-jafe nga fa waaye jafe-jafe ba fa nekk ñaari way dencante yi ñoo ko fa indi Euh, ndax suñ borom daganal na benn ñaar ñett ba ñeent kon soo amee benn dem di wutiwaat baneen jërul yàq derub ki fi nekk jërut sikkal itam ndax wala fii dañ daan wax ni ku ñeewut sab aawa du la mayub ñaareel moo tax nu war a góor góorlu bu baax a baax kemte layul sunu kàttan ci ñun suñu borom jox ci taxawule su yàlla dogalee ngay wuti banee nit rekk waay na nga moytandiku fen muy wax ak moom ci loo xamante ni lu dëgg néewut ca kafa nekk ndax jàppal ni kii ngay labatkat bu sottee ca kër ga la jëm te léeg nga gis koo xam naa la sama aaw bi dafa dof maanaam xel mi matut wala daa màggat te yow mi ko fi indi yaa ko mag wala daa wut walla xamut àdduna wala xamut nangam xamut nàngam yow nag dama bëgg nga seereel ma samay mbir boo ñëwee nangam lenn lu ci nekk nga wax ko ba mu jàpp ni moom ni ab dof lay fekk si nit ku tekkiwul dara lay fekk si soo ñëwee nga yendoo ganale ba ca ngoon nga dajale leen nag ni ko léegi dama bëgg kii ma doon sikkal mu jiitu yow nga topp ci moom moom dana xam ni li nga doon wax dara du ci dëgg bu boobaa nag ab ànd mënatu faane làng de mën na faane waaye ak defoo aku jaxasoo mënatula ne te loolu yow mii boroom kër gi yaa ko tas loolu dafay am léeg-léeg itam da ngay gis soxna su toog ak njabootam di leen sikkalal seen baay ba tax ñu jóge ca guuxal ko mer moo xamante ne ni dañoo sukkandiku ca la seen yaay wax te la seen yaay wax dara du ci dëgg moo tax may wax góor ñi nañ moytandiku bu baax a baax xas sa jabar ci biir ak njabootam ndax yaa ngi taal taalu fitna boo xamante ne nii bu tàkkee lu baax ndax ñaar rekk ci mën a juddoo muy gone yi bañ la ànd ak seen yaay walla ñu bañ seen yaay te ñaare nag loolu bu amee li ci ëpp gone yi seen yaay la àndal moo tax bari na njaboot gu màgg amaluñ njariñ seeni waajur fekk dañ leen a mere woon ci def-def boo xamante ni moom lañ defoon ñu jàpp ni dañ caa jublu woon humilier seen yaay wala toroxal ko walla teg ko naqar yooyu yëpp dafa marta moytu ndax jiwu la wu ndaw woo xamante ni ba nga koy def doo ko sentir waaye mooy màgg ba indi ay jafe-jafe yu bare bari gis ni itam ni ci ñàkk a di ko muy ñàkk bàyyi xel sunu toogin ci biir kër gi mooy luñ la wax nga nettaliwaat ko loola naqari nga xultu ko jëfandikoo sab sañ-sañ ak sa man-man te bokk yi koo mënta muñ ayibam matoo ko kilifa koo mënta muñ ayibam matoo ko kilifa kon war nañu bàyyante xel bu baax a baax ci xaj ak xajoo xajoo bang-bangi nit ñi ak xaj seeni bon bon muy yidul noona ñu di la ko wax ci nit dégg day kenn du ko bañ ndax nopp amut kubéer waaye dégg jàpp mooy li bon doomu aadama du dunde noonu da ngay xam nit lu yàgg te xamooloo ko lenn lenn lu ñaaw musoo caa teg sa bëtit bis nit ñëw jox la benn xibaar ci moom nga jàpp loola bàyyi la nga xamoon jàpp li nga dégg bàyyi li nga xam loolu ak matadi la ku doy waar léegi léeg itam nga gis jafe-jafe ci sunu biir kër yi ndax xëy na ñaar a fa nekk ba ñett ba ñeent bu ko defee nag sun borom mi séddale wërsëg yi moo tolloolewut jigéen ñi bu ñu bokkee borom kër itam seeni wërsëg tolloowut loolu itam jigéen ñi war nañ koy sóoraale bu baax a baax ci kujje gi famille yi itam bokkuñu ay gisin bokkuñu ay réalité ndax bari na ñoo xamante ni nii bu yóbboo seen doom fi barab seen loxo du ca jóg bari na ñoo xamante ni bu ñu yóbboo seen doom ci barab te barab boobee la ñuy séentuwaale ndimbal lu def retour ci ñoom yi nag léeg-léeg jigéen ñi duñ ko xàmmee ba tax léeg-léeg mu indi ñàkk déggatikoo ak seen boroom kër walla ñàkk a seen moroom yi ñu bokkal kër gi ndax dangay gis koo xamante ni xëy na ay càmmiñam suñ boroom dénk na leen wërsëg ñoo jàpp ci sëy bi yaayam suñ borom dénk na ko wërsëg moo jàpp ci sëy ba wala baayam suñ boroom dénk na ko wërsëg moo jàpp ci sëy ba yow na xëy na yaa nga fa waaye sa baay amul doole walla sa yaay amul doole wala sa say càmmiñ amuñu doole wala bu ñu amee doole itam seenum xel jëll na la bu ko defee nag ka nga xamante ne ni ay bokkam a koy dimbali te mi boroomub sag luñ ko mën a defalit sëriñam bi ko yor la koy adressé ndax ab sëy itam ab sag da caa nekk boo xamante ne nii nit ñi foog ni ñu ngi lay defal te la sax ab sag te loolu léeg-léeg nit ñi duñ ko xàmme te bari na jigéen ñoo xam ne lépp lu mën a am donte ñoo ko liggéey ci seen pexey bopp sax seen borom kër lañ koy sagale te boroom kër gi itam bëggub sag dana tax du weddi du miim bàyyi noonu ku gëm baax na ku gëmut yaa xam bu ko defee ñenn ña dañuy jàpp ni ak jàng la ba tax léeg-léeg ñuy traité noo xamante ni nii dafay indi rek frustration ci dëkkin wi ba tax na itam léeg-léeg sunu bokk yi góor ñi ci ak rafetal ak itam ni leen sunu borom bindee ci bëgg ab sakk ak sutura léeg-léeg rek mu demee noo xamante ni ni wartu woon a demee noonu ñu daan gis léeg-léeg kër gu mag koo xamante ni nii ko ay dangay ngay xëy laaj ji dépense waaye am soxna su yeewu su nekk ci seen biir ci biir kër ga lay sëy ñoo bokk boroom kër waaye buy yónni ndawam pour mu jëli dépense day fas jël dépense fas jox mu ngëb ñu ko soo demee su la joxee nga boole ko li ma la joxoon indil ma su fekkente ni dañu nga xaar ba ci kanam it nga indil ma lii ma la joxoon loolu bokki dëkkandoom yi koy gis te comprendre uñ ko dañuy defe ni sëñ bi da koo beral loxo ci diw moom lu mu laaj yi ñu jox ndax gis nañ nit ndawam loolu yii muy indi muy yónni saa yuy génn dana génnaale dara te seenum xel mënta àgg ci detekte ba xam lu mu fay duggaale boo ko defee loola mën naa indi ak ñàkk déggante te fekk ak jonge rekk la ñu gis ni itam ni ñi ci biir kër gi bàyyante xel gi ñuy bàyyee xel boroom kër gi dana tax itam nag xolub boroom kër gi gën a jàng ci ki ëpp yërmaane ci moom mën naa bañ a fés nag ci noo xamante ni ñoom danañ ko xam waaye léeg-léeg itam nag mu fés ndax nit ku ko teral yaa ko tëral waaye ku ko toroxal yaa ko tuxal ci nettali rekk benn waay boo xamante ni daa am ñetti soxna waaye ñaareel bi la àndal moom daal moom la gën a déggoon waa dëkk bi ni moom bu fekkonte ne ni aaw bi la gën a déggoon dañ naan lim fi jiitu moo tax bu fekkoon ñetteel bi itam dañ naan li muy seet bee tax waaye moom ñaareel bi rek bañ jàpp ni da koo liggéey wala daa àndut ak sagoom te waa ji moom am xar menn xar dong la am akub xaj ñaar yooyu képp la am mooy àddina li ci luñ mën a wax bi coow li baree ci moom nag mu wax waa dëkk bi ni leen bu subaa ci tisbaar nañ daje ca garabu pénc ga danaa leen wax lii ma def fan laa ko teg ndax coow li bari na waa dëkk ba ñi ñëpp génn ñëw toog di ko déglu xaj bi ñëw góor ne xar mi ñëw góor ne mu toog ba mu yàgg mu ni aaw kër gi demal indil ma sama satala waajal waxtu mu dem indi satala gi ñëw taajal ko toog tuuti daal ni ñetteel bi sama derub jullikaay ba demal indil ma ko ñetteel bi dem taxañ der bi ñëw lalal ko ñaareel bi ñu doon tuumaal mu ni ko léegi sama kurus ga ca bopp ngeganaay ba demal indil ma ñaareel bi génn jéggatee mbooloo mi ba génn romb xaj ba ak ma xaj ba ak ma jóg topp ko ànd ak ñaareel ba wuti biir kër ga mu joxoñ mbooloo mi ni leen ñaar ñee du ñuy nit muy xaj bi ak xarma du ñuy nit ku nekk jaar na fa topp la bi mu jógee jaar fa ñu topp ko fa mu jaar ak ñoom ba bi mu jógee ñu topp ko foofu rekk la jaar ak man bokk yi nañ delloosiwaat suñu xel bu baax a baax ci dawal yërmaande ak digganteeg ñu nu suñ borom booleel ci dimbali leen ci seen kemtelaayul kàttan ci toppatoo leen nit bëgg na lool ku ko yëg bëgg na itam ku ko suturaal bëgg na ku ko sagal lu am solo la waaye mu mel ni itam nag léeg-léeg ñi war a ànd di am ak juuyoo te dara du ko waral lu dul man-man bu nu nuyu si te waajaluñ ko loolu itam léeg-léeg dana indi ay jafe-jafe ci biiru bokk muy suñ borom dalaa ma ne gan jox la wërsëg ci biir ay bokk yoo xamante ni nii yaa leen ëpple waaye ëppoo leen ndax mënoo leen a génn loolee nga yor ñu am ca àq te nanguwoo leen koo jox xanaa yaa ngi koy pasar pasare ci aw jàmbur ndax lala jàmbur yi nangul bokk du ko nangu ndax yéen bokk dara loolu itam léeg-léeg mu indi jafe-jafe te suñ boroom nag ni mu bindee mooy askan wu ne def na ca koo xamante ni lam yor ci wërsëg su ko nangoo bokk ak ñoom néewuma tumuranke dana fa jeex de waaye mën na faa néew doole moo tax yàlla ni la bokk yi ma la booleel jox leen seen wàll ci li ma la jox waxul nga dimbali leen moo tax dimbali mbokk du ak mbaax war teef la wa atisal xurba xàqa jox ko wàllam ci li ma la jox loolu war la mu suñ borom santaane li ñuy wax mbaax dëgg mooy dimbali koo xamante ni nii soo ko dimbaliwul woon di sañu laa loolu mooy mbaax waaye jox mbokk mu warteef la moo tax mat nañuy gestu bu baax a baax mbokk mu am njariñ dee su ko wacc dee su ko bañ dee su ko fàtte mbokk mu am njariñ dee su ko wacc dee su ko bañ dee su ko fàtte nga gis itam léeg-léeg man-man bob yi moo nii tàggale ba tax duñu xajoonte muy dangay ngay daal di bëgg gis sa bopp bëgg ab cër bëgg àdduna daal feeñ topp bànneex ak bakkan daal di bëgg a ñëw ci ñi la jàmbur yi def ngir soxla sa tuut soo si nga bëgg bokk yi def la te buñ la ko deful nga ni dañoo añaan walla dañoo bon te fekk yow yaa am sikk mu mel ni walla dañoo xoolaat bu baax a baax nan la ñuy def ba gën a mën a jaxasoo ci ab ànd léeg-léeg nag waajur yi ñu jaboote noonu yi tàggale ndax dangay gis ñoo xamante ni ñoo bokk wenn waajur wu jigéen bokk wenn waajur wu góor bokk na ci kër gi walla ñoo bokk wenn waajur wu góor bokk na ci kër gi walla ñoo bokk wenn waajur wu jigéen bokk na ci kër gi doon ay góor ku ne am soxna waroon a boole seen lépp mu doon benn ci loo xamante ne ni mën nanoo ànd di ko jëf ñu moytu ca ak tàggali ko waaye dangay gis ni keroog boobu yi lañ gën a tàggali ko muy luwaa bi dox ci kër gi mooy ku sa soxna ay yaa koy jox dépense mbokk yi loolu bu dee ànd itam rafetut rafetut ndax man-man yi tolloo wut wala sax léeg-léeg ki man day manifesté wu ni lépp maa ko yoon maa koy def ba tax mu bëgg am benn privilège buñ ko defar ci biir kër gi te fekk magu ca waaye moom la suñ borom jox baat ma jàpp ni li gënoon mooy waxtaani waat suñ biir kër yi organiser ko ay bokk dañuy bokk xalaat bokk yéene bokk lañu am ñi bokk di dund ci biir kër te suñu borom boole leen bokk goog yi wala sax ay boroom kër la ñoo xam ne si seeni waajur daa bokk waaye ñoo tase ci benn barab bi ëtt bi bokk njël li nañu waxtaane dépense bi kenn ku ci nekk na ca def fam ne ki yàlla dogal mu man lépp na jàpp ni njaboot gii moo leen war a yanu ngir lëggéeyal ci yàlla ndax lii ko suñu borom jox te mënoon ko koo xañ waaye baat bi nag nañ ko bàyyee ki ko war a yor te mooy kilifa ak njaboot gi su dee moo mag ca kër ga nañ ko jiital su dee moo mag ci waa kër baayam nañ ko jox cër bi ñu ko war a jox ci jiital ko te lépp ñu di ko waxtaane di harmoniser waaye da gis ni ku sa soxna ay yaa koy jox dépense te man-man yi tolloowut kuy xotti doo xottil ñëpp da ngay sóoraale rek sa soxna dong te ci fa nga mane fa nga koy defee soxna yooyu deetuñu ànd doom yi niñ leen di jàppee kenn ku ci nekk say doom rek ka toppatoo ki man day yóbbu ay doomam ca internat ba walla ca école ba ki mënut bàyyi doom ci daara ji gis nga gone yooyu yi mënut yow mii jàpp ne man nga su gone yi màggee doo leen yilif ndax yaag ñoo bokkandoon di dund ci kër gi te defaloo leen dara féetewoo leen fenn te man-man boobu yi tax nga gis sa bopp nag tuuti ci kanam suñu borom mën naa soppi gone ya man ca loo xamante ni nii la nga am matu leen sax asaka te loolu mi ngi am kon man-man yi bu mu nu tax a soppiku noonu waxtaane sunu biir kër yi ngir boole suñu njaboot yi da gis bu jëkk mag ñi bu ñuy xotti seen soxna yi ñooy bokk luñ sol waaye xotti événement rek lañ ko daan lañ ci bëggoon mooy bu ñuy génn li ñuy sol niroo ndax ñu mën a ànd ndax ñu mën a ànd waaye buñ bàyyee kenn ku ci nekk solo fa mu ma ne lu ñu ànd te loolu bokk yi mi ngi feeñ waxtu ci nekk suñ njaboot yi ci biir kër yi saa yu ñu demu xew duñu àndandoo ka jëkk ka gën a jekk mooy jëkk a dem wala mooy mujj a dem ndax bëgg bañ a ànd ak ñoom wala sax ñoom ñoo dul bëgg ànd ak moom ndax tolloowuñ dimension sociale ka ca gën a néew doole guddi lay dem ca xew wa wala buy dem day bàyyi ba ñëpp dem ba wëlbatiku mu door a dem te yooyu yëpp ñàkk a toog waxtaane ko rek moo tax mu judd waaye mënoon naa ñàkk bu dee tabaski nga xamante ni ni wetuk diine gee ci gën a woyof mooy soo mënut baal léegi njaboot teg nañu ci loo xamante ne nii danañ ci tegoo coono yoo xam ne diine teguñu damay wax ni tabaski bëy dagan na waaye fi mu doon nii bari nag ñoo xamante ni buñ ko yóbbuwoon seen kër seen kër tas loo tax mooy dañ faa nekk ak seen yeneen i nawle yoo xamante ni ñoo bokk waajur te ñoo ko ëpp man-man te bokk yi loolu mënees na koo waxtaane ba yi ñuy jënd mooy tolloo kenn du ci gis sa bopp duñ ci agressé kenn waaye da gis ni jëndin wi gàtt ci biir kër gi ak xewin yi muy xew yi am ci biir kër gi ak dëkkin wi jur na ak noonoo goo xamante ne ni daanaka noo bokk lépp waaye ay jàmbur lañ loolu jafe-jafe la boo xam ne ñàkk koo waxtaane rek mooy am noonu itam lay amee ci ñi suñ boroom jox ja ba nañ war a ànde ànd ba day des lool ndax ñàkk wóolonte ñàkk nawlonte kenn ku nekk di moytu sa moroom di ko daw ba tax ñemewoo lekkuk lekkam ñemewoo sol yi yéreem ñémewoo ko gannaaw itam dugg ci biirum néegam ndax ñaaw njort loolu itam jafe-jafe la boo xamante ne ni mi ngi tasaaroo ci pénc mi am ci itam nag yoo xamante ne ni mi ngi juddoo ci kilifa yi jiitu am ci yoo xamante ni ni mi ngi juddoo ci taalibe yuy toppe bari na kër yoo xamante ni seeni boroom a ko tas bari na kër yoo xamante ni ni itam ñi ñu wooye ay toppee ñoo koy tas ndax ñoo xamante ne nii ñoo bokk lépp lu dul ni kii ne ci kanam da leen a mag ci moo tax mu jiitu ñu jël ko def ko wàlliyu mboolem ñeneen ñu topp ñoom ñëpp ñu def leen ay ay bàll puy di yoo xam ne nu la neex yàq leen lu la neex nga leen di traité te ku ca dem ba agsi ca place boobee koo kee nga defoon wàlliyu toog benn nga jàppe ko adversaire wala nga walbati sa discours ko yow lañ doon xaar yooyu itam jafe-jafe la li waral ñàkk déggoo di itam léeg-léeg mooy ki yàlla dogal mu jiitu da dul bàyyi xel ñi mu bokkal jataay bi ci taxawaay yi léeg itam ñooy wax ba féewale la ak ña nga waroon àndal moo xam ay rakk la moo xam ay doom la moo xam ay taalibe la di la wan ay sikk ak ay ay ay défaut yoo xamante ne ni dañ ko créé ci seenum xel waaye dara nekku ca loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ci dundin wi ndax bari na lu mu yàq bari na itam léeg-léeg ak ñàkk nangoo toppe gu am ci njaboot gu sew gi te ay wax rekk koy indi ak ay gisin yoo xamante ni nii gisewuñ noonu nit soo ko tanee te dimbali woo ko mënoo fexe ba mu bëgg la mbokk yi nañu dimbalante te njaboot gi laaj na taxaw ndax léeg-léeg itam waajur yi dem bàyyi la ak ñoo xamante ne ni dañoo toll ci jàng ñu war leen a saytu amoo soxla ci seenum jàng ñuy góorgóorlu di débrouiller di daw di daanu ba suñ borom def ñu taxaw nga bëgguñu teg lu fenn léeg-léeg itam mu bàyyi fi ñoo xamante ni nii seenum njàng day door a jeex te jàppuñu ci dara te bari na kër yu mag yoo xamante ni dépense saxu fa ku fa yenn doo añ waaye njaboot gu sew gi nga xamante ni amaguñ fuñ jëm soxna yi nga xamante ni seenu njaboot màggagut amaguñ ku leen yor ak soxna yi nga xamante ni nii amuñu fa woon njaboot ñooñu fan lañ jëm te ku wax ñu ni da da koo bañ da koy xeex yooyu ay terme la yu bon yoo xamante ni nii daara jagu ci te ñàkk def li ñuy war rek moo ko waral te soo waxee li ñu war a def ñu ni dañuy gaaruwaale déedéet kenn ku ne am na sañ sañu nii laa koy defe nii laa ko bëgg nii laa koy defe waaye kenn amut maqaama mu toll kenn du ko fi waxee mat naa bàyyi xel ci sensé discours yi mat naa bàyyi xel itam ci teewaay yi léeg-léeg ci barab yi discours yiñ fiy jàllale luy tàqale ak njaboot rekk la ndax ñenn bokk yoo xam ne ñoo bokk lépp nga jël kenn rekk yëkkati seen kaw yi ci des ñëpp nga def leen niti ordinaire loolu yi dafay tax ànd du mën a am ndax bu ëllëgee boo wootee duñ ñëw te yooyu yëpp mag ñi daan nañ ko sóoraale lu am solo la te bari na kuy wax koo xamante ni ni day wax ngir defar ak wetam waaye waxalu la yow mi ko jox sa kàddu ngir lu nas sa njaboot ngir lu ko takk ba mu doon wenn say lu tax nit ñi ñeme la daanaka ay noon rekk la lay wutal waaye yëkkati gim la ci yëkkati ci seen kaw wan gim lay wan ni la doo seen moroom loola day neex ci sa bakkan dafa dëppoog sa bànneex ba tax doo ko artu waaye lu yàqu rekk lay jëm dafa am genn kilifa gu mag goo xamante ay taalibeem ab seex la sax bu ñëw ci moom di ko ziar sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma la seex bu mag ñëw di siyaar si sëñ Cheikh daal jooy ci biir siyaar bi bi mu demee sëñ Abdou Khoudous mu Mbacke Kajoor moom sëñ Amar Fall laaj ko ni ko sëñ bi diw mi lu muy jooy sëñ Cheikh ni ko jooyu dara bëgg a exploité ñi mu àndal rek nga xam ne ki nga koy defal moom xam na li tax nga di ko def man am nag ñi nga àndal di ko def moom xamuñu li tax nga di ko def mooy noo leen gën a jekkoo ba mën leen a war a tax nga di ko def waaye du dëgg ci yow sëñ Mbàkke Soxna daan wax ni kilifa gi ki la jox boppam jox la njabootam di la jox alalam di la liggéeyal néew na mu wéet ak yow wax la dara te gëmoo ko waaye ñi ci ëpp waxuñu dëgg ñi ci ëpp waxuñu dëgg diw dalaa bañ diw sam noona buñ la tuddee du wax ci yow lu rafet yooyu yëpp ñu koy wax ñëpp ay yàqkat lañ ñëpp ñëpp ab yàqkat lañ ak a neexoon ñu mel ni benn xakim boo xamante ni daa am ku ñëw ci moom ni ko diw dalaa saaga mu ni ko ndax yow ndawal seytaane li muy yebal ci man ngir yàq sama digganteeg diw ba nga di ma nettali ay saaga kooku lu mën a tee dégg du ko wax si léeg léegi ñu ni ko diw lim la wax ci lu bon mu ni jërul maa nettali ci téeréeb jëfam rekk lañu koy bind kenn bind ko ci sama téeréeb jëf yooyu yëpp yu am solo la yu mat di bàyyi xel ku mel ni bàyyi sëñ Njaay Gédé léeg-léeg nit da daan ñëw tooge fa nit wax mun la xaaral ma may la ci aw wax mu ni la sàllaaw buy naaw may naaw de bu ko defee deetoo continue boo defee bokk yi ñuy déglu ci jataay bi la ma daan wax ci njëlbeen rek mooy jataay la boo xam ne dañuy partagé man naam li ngeen yor moo ëpp fopp li ma yor te fi samam xel tool rek lay waxee ngir fàttalante ak société bi tàllal loxo ko am xalaat

seeni contribution ci luy tax pénc mi mën a jàkk ndax doomu aadama dafa sàggan ndax dafa bàyyiwut xel ni ci combat la boo ko bay amee te bàyyiwoo ko xel defet dana la yomb te loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax wolof yi dañuy wax ni ñaar lu bëre te ñett man kenn doomu aadama ñeent ko song te dama xamul ba xam bàyyi na ko xel walla bàyyiwu ko xel doomu aadama seytaane song na ko te sa defet rekk la bëgg inna seytaana lakum mu mubin suñ borom mi nu bind te xam ko xamuk caay-caayam xamuk efficacité ci yàq moo ni soo seenum noonu la nga xam ni bari na kuy toog ci jataayu yu aousu billahi min asheytaani rajim te fekk mook seytaane ànd ci toolam lay xëy di ca gont la muy def lépp moom lay dimbali ci yàq ki muy yàq doomu adama bakkanam da koo songu te bakkan bi daa niru ab soppe waaye ab noon la bakkan daa niru ab soppe waaye noon la ndax bakkan day bañ ku ko tënk dafay bëgg liberté bëgg ab noflaay te yooyu boo ko ci toppee sag dund dana sànku doomu aadama itam bànneexam léeg-léeg daf koy not ba defloo ko loo xamante ni danga koy def ba pare am ca kersa loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax bànneex boobu yi di la jëfloo léeg-léeg loo xamante ni nii lu noonu ndax léegi ni dale wóor ni àddunaa ci jël wàllam waaye dara ci lu baax ne wu ndax bëgg daraja ak bëggum koom te ñaar yi yàq na lu bare bare nit ñi bëgg nañ daraja bëgg daraja goo xam ne koo dollil darajaam léegi mu wommatu jëm ci yow muy wilaay yoo koy tëggal baatin boo koy tëggal sañ-sañ boo koy tëggal di gëm ak boroomam te fekk yooyu dara du ci dëgg koo dollil mi itam mu damm ay tànkam sukk sa wet ndax nit ñi bëgg kuñ bëgg wërsëg am koom te yooyu yëpp yooyu yëpp doy loo ko dàq yooyu yëpp regg te muy dëgg moo ko dàq gis nga bokk yi boo fii xiiwub doom naan ko ba regg soo ñëwee fii ci jataay bi soo ñëw teg ay palaati afra it soxla ko ndax regg nga ñu tegoon ay palaati ganaar itam soxlawoo ko ndax rek nga bëggoon moo tax suur naa juy dëgg lu ko askoor jënd jar bokk yi nanu delloo siwaat sunu xel bu baax a baax ci boole sunu bopp nangoo doon wenn say ni nu sunu borom bindee muy ñu doon jenn jëmm kenn ku nekk ci bokk yi nga jàppi ko ci jëmm ji ab cër nag lu ca laal borom dana ko yëg lu dal cër ba jëmm jëpp noo koy yëgandoo noonu la ñu waroon a dunde te lool la nu sang bi digal mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko donn loolu la ñu digal mooy ñu soppante wóolante tey dimbalante bañ a xeebante bañ a yabante bañ bañante tey dogalante ngànt bu ko defee li nga xam te mu leer te jàng ko ci téere yi muy ndigali sunu borom ñu maase ci tënku koo gis muy dox waneen doxin nag woo xamante ni daa wuute ak loola nga dogal ko ngànt te rafetal sa gis-gis ci moom ci ni na daa am ganeen borom nga bañ ko ca fekk nag di ko ca roy ndax yow na mooy ku umpule sa yaa waaye xam nga sa bopp balil insaanu ala nafsihi bashira doomu aadama moo gën a xam boppam kon doo sukkandiku li nit ñi wax ci yow gëm ko bàyyi li nga xam ci sa jëm loolu dara gënu koo doonu dof danaa ko faral di wax ni jigéen ju am boroom këram nekk ci biir néegub sëy su demee ba moroomi jigéenam ya muy àndal ñoo ko naan dangaa tollu barab mu door a xam ni daa tollu barab war naa xam ni biiram boobee dara newu ci waaye ku sukkandiku ci waxi nit ñi danga sànku ba faw te mooy dañ lay tëggal wilaaya di la tëggal baatin di la wutal sañ-sañ ci man nga ko soo ko defee du la wàññi dara soo ci duggee danga ci génn te yooyu yëpp dara du ci dëkk dara dara du ci dëkk mat naa bàyyi xel bu baax a baax ñu baamtuwaat rekk numéro bi ku bëgg a jokkoo ak waxtaan wi mbaa nga indi sa xalaat 77 670 51 51 su ko defee bokk yi ni nu war a ànde muy kenn ku ci nekk la nga man nga def ko te yàlla tax jëmm kenn ku nekk xam na ni li ci loxo man tànk mënu ko waaye la tànk man it loxo mënu ko li bët man nopp mënu ko waaye li nopp manit bët mënu ko yooyu yëpp dafay tax jàngale rek ci ni kenn ku ci nekk am na loo man loo xamante ni ni société bi daf koy soxla nga mën caa dimbali say moroom dimbali ci say bokk te yaakaar ci payuk suñu borom suñu ko defee ndimbalul yàlla lu jege jege la te sunu borom dana nu dimbali ndimbal lu fés mooy rek salaamaaleykum buntiwaat sunu toogin defaraat sunu nekkin ci biir kër yi. salaamaaleykum. yewenal sunuy diggante ak. njaboot gi nu yàlla jox. yewenal yi sunu diggante. Ibrahima. donc siyaar. dëkkandoo yi bisimilah. salaamaaleykum. salaamaaleykum. bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa siyaar. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. maaleykum salaam. Ah. Ibrahima. Ah, ñoo ngi siyaar. jërëjëf yàlla nangu siyaar bi. ñoo ngi siyaar. ma ni jërëjëf yal yàlla nangu siyaar bi. ñoo ngi lay dégg. sëñ Ahmad. siyaar bu baax. ñu rafetlu waxtaan wi. alhamdulilah tabaarakallah. ñooy siyaare bu baax. jërëjëf yal na waxtaan wi. jërëjëf. di taxawaay bi yàgg. amiin nu ko boole. yàgg bi lool te wér. amiin amiin barke Sëñ Tuubaa. jërëjëf mbokk moom yi tàbbi léegi. yal na suñu borom boole dimbali yal na boole nu gàttu. waaye bokk yi daal jafe-jafe mook àdduna ñoo ànd waaye jafe-jafe bu mu ci man di doon dañ koy solutionné jàll ndax loolu la nu fi suñ borom bàyyee bu ko defee ñu roy ci sunu mag ñu baax ñi fi nekkoon ci dund ku barkeel. salaamaaleykum. waaleykum wa rahmatullah. waaw ah, sëñ Modou. waaw ah, noo ngi ziar bu baax. Mor Talla Mbengue Kaolack. Mor Talla Mbengue Kaolack. waaw ah, ñu ngi lay ziar. jërëjëf yal na yàlla nangu ziar bi. yal na yàlla yàlla yokk sa xam-xam. alhamdulilah tabaarakallah. yàggal la lool. alhamdulilah amin yal na ko boole. amul luñ ci yokk lu bëgg rek ndax xaw na noo yeewu ci yow. alhamdulilah. loolu lépp liggéeyub sëñ Tuubaa booy def ci doomu aadama yi la. Mhm, alhamdulilah. ci béggee nag yal na sëñ Tuubaa béggee ko raw ndax loolu nga ci diggu. na nu ko. boole ci diggu yàlla ak sëñ Tuubaa rek nga yal ko def. alhamdulilah. ci barke lislaam. baarakallah. jërëjëf damaa kontaan rek sama xol sedd ma la seet. jërëjëf jërëjëf waaye naa loolu Ndiaye. tabaarkalla jërëjëf yal na yàlla fay naa ne heure boo amee soxla naa sa numéro ndax dama yàlla daa dogal ma soppala a bopp. wax nga dëgg. waaw loolu moom suñu borom ko dogal ci man. danaa wax technicien bi mu jox la ko incha allah. waaw incha allah rabbi incha allah yàlla tabaarakallah. baax na jërëjëf kon ki yàlla yónni woon ci ñun loolu la ñu digaloon jële ko ci borom bi tabaaraka wa taala. daa di am. mooy nu ànd. wala fi nag dañuy wax ni ku wàcc sab ànd ànd boo dem fekk ca borom ñu mujj ñii nag dañoo déggul wala fi dañaan ku wàcc ku sab ànd ànd kenn du ca toog ànd yii ñu xam nga xam ni ab dooma ci nekk salaamaaleykum gën waaye ànd aleykum salaam wa rahmatullah salaamaaleykum waaleykum salaam sant yàlla bu baax a baax damaa

sant yàlla bu baax a baax. sëñ Ahmadu maa ngi ziar. jërëjëf soxna Khady Diop Touba jërëjëf jërëjëf. waaw kontaan bu baax. tabaarakallah tabaarakallah. yàlla guddal fan wi. amiin nu ko boole. neeral xol. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Ndiaye. jërëjëf tabaarakallah. jërëjëf jërëjëf. alhamdulilah tabaarakallah. Touba Tawfekh. Touba Tawfekh jërëjëf. waaw. yàlla yàlla def faj aajo yi. yàlla def jàmm. suñu borom taxawu njaboot gi. amiin yàlla dëkkale xol yi. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jasaakumullah kon mbokk yi loolu mooy tomb bi ñu bëggoon a fàttalante ndax ñàkk xajonte gi. ñàkk a muñalante gi. salaamaaleykum. alayhi salaam wa rahmatullah. wax nañu mu ngi ziar. ñu ngi doon caa yi. sant yàlla bu baax a baax. waaw ñu ngi rafet jëf. waaye rafet nañu ko bu baax a baax ñu koy bàyyi xel bu baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah tabarakallah ñaan suñu borom bi may leen fan gudd loolu bu ànd ak wér amiin yal nañu ko yàlla boole ndax lii rek la réew mi sax mhm. dañ ko dafa jar a bàyyi xel bu baax a baax ak ab di ko pare di ko def alhamdulilah yeneen ci yoon bi daal suñu borom tabaraka taala eggal leen ni aw yoon yeggee yàlla nañ suñu borom ko yàlla boole ñun ñëpp ci barke Seexul Xadiim yàlla kontaan bu baax jërëjëf amiin jërëjëf mbokk yi bu ñu delloo ci fi nu suñ borom joxoñoon rek ñun ñëpp daanu am jàmm te mooy xajoonte di dimbalante kenn ku ci nekk la nga tane sa moroom nga dimbali ko ci ngir yàlla ci sàmmal ko ab deram sàmmal ko alalam sàmmal ko bakkanam loolu bu ci ñépp maasee ndax loolu kenn ku nekk soxla nga ko ci sa bopp li ma soxla ci sa bopp nag moom laa yéene ñépp te loolu yonent bi sallallahu alayhi moo waxoon ni kenn ci yéen ak gëmam du mat mukk lu dul lim yéene boppam la yéene ay moromam te wax dëgg yàlla bu ma sañoon jàmm rekk lay am Euh, noonu laa ko yéene ñëpp sañoon nekk ñëpp nekk ci jàmm ndax nit ñi nag ku leen yéenewul jàmm it doo am jàmm parce que bu ma laloon sama matelas bi tëdd ci bëgg a nelaw nga ñëw toog sama wet ni ma doo fi nelawe yow it doo nelaw mukk ci àdduna moo tax nañu yéenante jàmm rek te xam suñ boroom noppi na te programme bu yàlla rek mooy jàll lu mën a xew programme bu suñu borom rek mooy jàll ko defee noo ngi wàcce foofu sunu kàddu sant bu baax ci émission bi di nuyu bu baax ok ñu ngi ziar bu baax tey sant bu baax te rafetlu émission bi itam jërëjëf jërëjëf ci sàkkumullah waaw ah, ci wax ju sell ji nga xam ne daal ñu ngi koy teewlu ba ba léegi alhamdulilah waaw ah, mu nekk loo xam ne tamit ci mujj di wax génn wax rek maanaam lu xam réew mi da koo soxla lool alhamdulilah ah, na nga xam ne noonu ko alxuraan waxee rek hmm. wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu fiihi hmm. na nga xam ne noonu la booloo nekk benn say te bañ a taqalikoo hmm. euh, waaw bu nekk daal ñuy déglu waxtaan wi dañuy soñ ci biir kër yi. alhamdulilah. ba ci njaboot geeg ñëpp rek. tabaarakallah. Euh, dina tax kenn ku ci nekk fa nga nekk. Hmm. sa taxawaay ci njaboot gi ak. ñun ñu ko waxee la dañuy dimbale ba nga xam ne dañu xam fi ñu teg suñu tànk. alhamdulilah alhamdulilah. waaw yàlla leen suñu borom gën a taxaw. ñun bu émission bi jamono bu nekk la dañuy déglu say wax muy nekk loo xam ne lu amul solo. njaboot gi la. rawatina njabootu ëllëg gi ñëw. Mm-hmm. jamono fi mu ne ku xam na ne <laughs> li waaye lu mu gën yàgg rek. yàq bi ak yeneen di gën a feeñ. waaye nag ginnaaw seen waxtaan yi tamit dafa nekk loo xam ne day des. Mm-hmm. nga xam ne lu mu yàgg yàgg it ñëpp dañ ci man di jëriñ incha allah rabbi alhamdulilah yal na ko yàlla barkeel nag na ci nga xam ne na ko yéene amiin barkeel suñu bu baax kay kon mbokk yi noo yëkkati jataay bi naa ba baneen dimanche ak jàmm ko yàlla fekkeloo yal na suñu boroom defar suñuy mbir defar seeni mbir yàlla defal nu jàmm ku bëgg jàmm yal na la yàlla may jàmm ku bëggul jàmm it na la yàlla forcé may la jàmm yal na suñu boroom def jàmm ci réew mi nawet bi ñu nekk yal nañ ko muurloo barakat Cheikhul Xadim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. madad li madad ma la yaxfaa علي شيء يتلي باللفاء نفيت كل من خلاني فهرب لما يسوع دوام الله قرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رهيب يا نزير نجيت من بيتعلق معها من الصياطين فشكري أسماء وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم